ba loolu wéyee commission d'observation bu Union européenne moom it jàkkaarloo na ak euh, taskatu xibaar yi ci suba ngir nag wax lépp li nga xamante ni daal moo di bilan bu am ci processus électoral bi nga xamante ni nag Macky Sall ci la falu loolu nag wax nañ ne daal ni élection yi jaar na yoon donte nag amoon na daal ay cas d'achat de conscience maanaam ay cas yoo xamante ni ay nit yu doon jënd carte électeur u jàmbur yi lu ni mel nag ñoom ñaawlu nañ ko nee nañ nag sax daañu def campagne ngir tamit lépp li nga xamante ni daal moo jëm ci wàllu fonds d'utilisation publique yi nga xamante ni tamit ñi ngi ko doon def ci biir campagne électorale bi tamit ñu teg ko ci yoon ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo di waa mission d'observation bu Union européenne njukkal nañu askanu Sénégal reportage Mody Gueye ak Pape Sénégal waaye la te moom lay moso doon ci wàllum démocratie njiitu mission d'observation électorale bu Union européenne euh, di rafetlu li nga xam ne moo di processus électoral bi kuréel yi nga xam ne ñoo ko doon sàmm waaye tamit askan wi nga xam ne ñoo demoon wote ji ñoom ñëpp boo boolee seenu jëfin bokk na ci li tax wote gi daal di jaar yoon. La mission d'observation des élections de l'Union européenne salue la bonne organisation du scrutin. par le ministère chargé des mission bi moo rafetlu anam yu ñu amalee vote bi ci loxoy ministre bi yor mbirum élection yi ak ci waa Sénat mission bu Union européenne rafetlu it jéegoy démocratie bu waa Sénégal wone firndeel ko it ak yenn ci seen ay makkaan. waaye commission gi nag gis na tamit ay rëq-rëq yoo xam ni dafa jógee ci coalition FAL 2012 euh, si ñaareelu tour élection la mission déplore que nous avons le jour du scrutin directement observé des cas d'achat de cartes d'électeurs cette activité mission bi moo ŋàññ ci vote bi ay jéego jëndum carte ndax lu nu mel la gis ca Kaffrine maatam Kanel Nioro waaye it jëndum ay bulletin de vote yi ñu jëfandikoowul ca gox bu Dagana Bakel ak Touba Mosquée ñu gis it ab ndaje waa PDS bu dëppawul ak yoon ndax kat dañu ko amal ca bañ na rek kon ëllëg la vote bi ak joxepp carte ci teewaayu ministre bi yor mbirum affaires étrangères mission d'observation électorale bu commission européenne di joxe dig daje mois de mais wala juin ngir génne li nga xam ne moo di rapport finalam euh, toftal ci ay recommandations. waaye nag fi ñu toll nii mu ngi ñaan président yees gi maanaam Macky Sall mu daal di saxal li nga xam ne moo jëm ci wàllum démocratie te askan wi wane ko waaye mu jëmmal li nga xam ne moo di séparation des pouvoirs. gannaaw loolu nag ki jiite sax mission d'observation bu Union européenne di Tijo Berman moom tamit àdduna jëmale ci lépp li nga xamante ni moom moo soxal lii nga xamante ni moo am ci Mali di nag ku d'état bi sàkku na daal ci soldat sa yi nga xamante ni ñoom ñoo këf nguur ga foofu ca Mali ñu delluwaat ci caserne jibal nguur gi civil yi loolu nag Tijo Berman mi nga xamante ni moom ab député européen la ca parlement ba yëkkati na ko ci ay kàddu tamit ci situation ca Mali. Pour que les chances soient égales pour tous. li nga xamante ni moo soxal élection yi ci Sénégal Benno Bokk Yaakaar rafetlu na daal li nga xamante ni moo di nag fal bu ñu fal président Macky Sall euh, ci lépp li nga xamante ni tamit moo soxal défi yi koy xaar wax nañ ni daal li soxal tamit leneen li nga xamante ni moo jëm euh, ci noppi ngir nag liggéey ak ñëpp ñi nga xamante ni bunge nañ ko euh, ci jamono yi nga xamante ni mi ngay yootu bopp nguur gi ki yor seen kàddu moo di Mbaye Ndiaye ñu teew la ko ci micro suñu naataango Aïssatou Anca Touré ku ne xam na ne calendrier élect euh, calendrier républicain ni mu war a dérouler bu ñu falee président la république moo di benn war na def passation de pouvoir ñaar euh, war na def certainement comme on est à la fin de l'année euh, à la fin vers la la date de l'indépendance war na def message à la nation war na former gouvernement donc ci loolu certainement ci la nekk à l'état actuel président Macky Sall euh, li nekk ci xelam moo di nguur dañ ko war a bokk ak say ñooñ dañ ko war a bokk ak ñi nga déggoo pour que quand même xalaat yi gën a yokku xam-xam yi gën a yokku mais ngor gi ci war également nekk à au rendez-vous looloo tax euh, avec la coalition Benno Bokk Yaakaar di ko yóbbu au pouvoir au deuxième tour Euh, moom pare na pour discuter waxtaan ak ñoom ba kenn bañ a euh, loru euh, mais quand même que ñu reconnaître ne moom mooy candidat bi gagné gannaaw yàlla peut-être réaménagement yooyu daal mu ngi ci camp bu ne mu ngi xalaat et que waruta am normalement jafe-jafe ci ni nangu pour que ñu ànd ensemble gérer ensemble aussi bien gouvernement bi que assemblée nationale ak parlement bi mbay Ndiaye ci waa bennoo Bokk Yaakaar fekk ñii di waa parti démocratique sénégalais nag nee nañu jël am na défaite nangu nañ ko donte euh, kii nga xamante ni nag moo di seen njiit moom moo njëkk njukkal kii di Macky Sall kon ñoom dàq nañu lépp li nga xamante ni moo jëm ci waxu recours te jublu jamono ji nag ci waajal législative yi ci seen baat Omar Sarr la ñu teewlu ci micro Aïssatou Anthia Touré ñu ni euh, euh, lu lu lu enfin lu am solo la d'une certaine manière parce que distance bi niroo na lu sore mais euh, duñ reconnaître que ñoom ñoo ñoo ñoo gagné président wax na ko déjà des bërki démb donc que ñoom ñoo gagné yi mais aussi war xam ni même ñoom suñu gañee élection yi c'est parce que duñ def coalition ba nga xam ni ñoom ñoom ñoo si ñoo si nekk coalition boobu xam ngeen ñëpp ngi si lu ñuy wax coalition hétéroclite amul amul Euh, amul génn amul bon enfin xam ngeen coalition yu mel noonu rek bon ñoom loo ñoom ñoo nunu gagné mais nun suñu suñu yaakaar mooy nun do suñu xam-xam suñu situation mooy nun ñooy premier parti euh, si euh, si Sénégal suñu coalition moo ëpp doole si Sénégal bon mais malheureusement système électoral bi moo mel noonu moo tax bien sûr ñu dem second tour président wooyee Macky Sall ba pare xam recours du jëriñ dara même su fekkee ni mën nu yaakaar mën nañu xool ni bureau vote bii wala bureau bee mën nañu changer résultat yi mais euh, président su demee bay def vraiment woo euh, ni ni ko reconnaître na ni moom moo gagné élection yi à ce moment là soxlatul ñu def ñu def recours donc euh, je ne pense pas que ñu def recours Macky sàll falu njiitu réew ci Sénégal guléet nag ab soxna di soxna Marème Faye di soxna soo xamante ni dañ ko yar ci yaru réew mi di nekk ca pale ba sénégalais yi nag ñoom joxe nañ ci seen gis-gis ñu bëri nag sax ca ñoom wax ni daal soxna Macky Sall dafa war a taxaw kii nga xamante ni moo doon président bu Sénégal di Macky ci lépp li nga xamante ni moo di liggéey bu koy xaar reportage bu Mame Ndiawar Diallo ak Libas Landi bees mu di kii di première dame bu Sénégal léegi ab sénégalaise la soo rek loolu ak tubaab lu ni mel njëkkee ci soxna sii di ci turu Mariam fay mu doon Ndar Géej xëy nekk première dame bu Sénégal ñenn ci askan wi rafetlu ko loolu. kontaan ci moom vraiment ñëpp a kontaan mais na ñaax jëkkëram rek mu gën a góorgóorlu rek xam nga am na yenn yoo xam ne moom ma ko war a dee jëkkëram mu di ko def ndax dëkk bi neex. première dame nekk sénégalaise moom kooku moom ndam gu rëy la si senegal parce que nemmale yeex yëpp dina daw fële te dina julli jëkkëram di julli loolu rek moo am solo mais nekk tubaab nekk ki xamuñu ndax ñu ngi doon julli si pale ba wala déet loolu rek sañu ndam la si Sénégal daal. bu loolu weesoo sénégalais yi di ñaax Mariam ngir mu taxaw jëkkëram ji di Macky Sall ba mu def Sénégal ab réew mu naat ñu koy dénk mu cëral jigéen ñi njàng mi ak wér gu yaram. jigéen la day dugg xam na ne sénégalais yi sonn nañ te moom xam na li sénégalais yi di dund parce que sénégalaise la donc dund na ko daal donc moom dina ko mën a dina mën a xam exactement li sénégalais yi bëgg. lu ma ko bu jénk nag mu taxaw si wàllu santé bi xam nga. ak euh, kii affaire xale yi ak euh, man daal surtout affaire santé bi daal mu gën si taxaw. des fois da ngay gis ñuy wasin dañuy am problème parce que problème xaalis lañuy am mais yenn yi su su su ko mënee wax jëkkëram pour ñu mun a ko sensibiliser ba nga xam ne yenn faj faju bi day yomb quoi si jigéen ñi. kii di Mariam Faye nag jamono ji liggéey bu takku di ko xaar askan wi di am yaakaar ni dina ànd ak ñoom defaraat Sénégal. ba loolu wéyee bis bi ñu jagleel théâtre ci àddina bi màggal nañ ko ci Sénégal ci Grand Théâtre nekk fii ci Ndakaaru tamit ñi nga xamante ni daal ñoo di comédiens yi euh, demoon nañ fa ci waxtaan lépp li nga xamante ni moom moo soxal wàllu théâtre ak tolluwaayam ñu jàpp nak waxtaan bi euh, ci thème bi nga xamante ni moo di la femme dans le théâtre sénégalais nekk na tamit métier théâtre kat métier boo xamante ni daal doy na waar ndaxte ñu bëri ci ñoom ñi ngay jànkonte ki jafe-jafe waaye ñeel ni saay tamit wàllu piratage euh, sonal leen loolu reportage yu Xadijatu Si ak Abdoulaye Ndiaye. ci biir bâtiment bu yanj bi di grand théâtre ñuy xel nak di dund théâtre googee ci kaw scène bi troupe théâtre yi di yéeg a ko wàcc public bi fees dell ak i ndaw ñuy ñëw nag teewe bés bu am solo tey ji nag di bés bu ñuy sargale ci àdduna bi yépp théâtre ci juróom fukkeelu anniversaire bi nag ñu jël thème bi duppee ko jigéen ñi ci théâtre bi fii ci Sénégal théâtre nag nekk lu am solo jigéen ñi di ci yëngu. femme dans le théâtre c'est quoi quelle sa place est-ce que am mu ngi yor place bi mu mérité lan lañ mën a def ba place boobu mu gën a gën faa mën a toog waxuñ nag góor égal jigéen déedéet dañ bëgg a wax rek ku nekk li nga war a def nga def ko. ñu ëpp nag ci ndaw ñi tey lañu ñu njëkk a jàkkaarloo ak lii di seen bu weesoo nag liggéey gi ñuy def ci théâtre bi ñi dundee nag théâtre amee ay jafe-jafe mu dem sax bay xel di noot seen liggéey. même discours lañuy wax même ñaxtu la ñuy def te mësula a réglé konti am na problème même ñaxtu lañuy ñuy def da dama jàpp ne ñi nga xamante ñooy def théâtre ay citoyen nañu mu wax naa ko ci benn conférence de presse dañ leen a war a boole ci yëf yi parce que réew bu amul culture théâtre am doxul lanam doxul réew moomu day gisuma ko mbaaw problème mu formation bi parce que tamit pour nga mën a jouer sur scène dafa am loo xam ne war nga ko jàng métier la loolu jotewul ak téléfilm dara loolu la ko Lamine Ndiaye di waxee Lamine Ndiaye nee na ñuy jouer scène comédien lañ tudd ñu def si ci film yi nee na acteur lañ tudd léegi il faut ñu former leen pour ñu mën a def théâtre ba pare bu ñu leen former ba pare il faut que yéen ngeen jàppale leen pour ñu mën leen a gis mën leen a xam parce que bu ñu leen xamul jàppale leen duñ mës a gañee am lu bari ci li ñuy liggéey. yooyu nag coono di yàq kanamu théâtre bi tey ji nag mbir yi ñoo ngi def lépp lu ñu mën ngir mu dañ ci gis-gisu directeur de cabinet bu ministre de la culture. fi mu nekk li ñu mën a yaakaar wax mooy rek. liggéey boobu nga xam ne état bi liggéey na ko ànd ci ak acteurs culturels yi muy comédiens yi di ñëpp loolu daanaka liñ si doon yaakaar yegg si na li si des rek mooy après ñu appliqué li ma bëgg a yokk rek mooy artistes yi dañu war a pour seen protection sociale ñoom itam ñu engagé wu ci biir ah ñoom parce que ñoom ñooy ndeyu mbi liggéey lépp lu ñu si def rek artistes yi war nañ cee bokk ñoo ci war a jiitu ñoo war a bindu ñoo war a engagé wu ba nga xam ni ñoom seen bopp nañ jël en charge lu baree bare waxuñu joxe xaalis parce que état bi dina contribuer mais ñoom ñu sentir ne ñu ngi ci gannaaw di yëngatu pour que seen mbir mi sotti. mu di nag ab aar buy xel di fay ci gis-gisu ñi ciy yëngu fi lekk nag loole di am gone yi tey profito nañu ci bis bi dund bànneex gu rëy a rëy. di wàllub théâtre ak bis buñ ko jagleel ci àddina ci Sénégal tamit ñi nga xamante ni ñoo ci yëngu kon màggal ko ci grand théâtre bi nekk fii eh, ci ndakaaru ba loolu wéyee ab néew xale lu góor bu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett moom la ñu gis ci bis bi eh, ci fii nga xamante ni daal moo di boori bloc des Madeleines eh, jàpp nañ ni daal waa ji nee nañu ab si suuf si daal la ñu fekk ci kawam ñenn ñi ne accident de travail la ndaxte daal kii di Aliou Bari yëngu ci wàllum euh, jaayum saaku suuf yi ci li nga xamante ni daal moo di wàllu port xibaar sapeur pompier yi ñoom ñëw fa ñëw euh, jël si néewam gannaaw nag ba ñu gisee ni faatu na foofule reportage Aïssatou Anca Touré ak ci Mamar Taw Aliou Bari dundee waxtoom yu mujj mu faatu ci anam yu doy waar waa këram ak àndandoom yi nekk ci njàqare ak tiis. affaire bi demba booy bi la tàggoo waa jël sàkk ñëw sàkk bu gasee suuf bu ñu gasee fii suuf moom lay liggéey kaw léegi bi mu ñëwee gas day jël sac dugg sac yi yóbbu jaay ñu 600 francs sac ak 500 francs daan dooleem daal dem na bu ñu jëlee sac yi tegalu kenn dafa jël rek ñëw pour liggéey taf taf dem yóbbu te mu ñëwee dugg si biir affaire bi affaire bi xam mabbu si kawam bon depuis demuñu ko seet gisuñu ko dégg na benn moroom am ko tudd Ibrahima Diallo moo jóge fal atelier ñu ne depuis démb gisuma eh, Alimo bàyyi ma ñëw xool ndaa dama koy gis mu ñëw gis bagage bi gisul Ibrahima gisul Alimo léegi mu jël pelle bi ko gis affaire bi mabba mu gis jël peel bi gas suuf bi gis booy bi bu gisee booy bi mu woo ñu après bi na ñu woo police ak sapé pompier ñëw génne ko. mu amoon ñaar fukki at ak juróom-ñett Aliou Bari réeroon démb waa këram wër ko ba sonn ndeketewoo moom mi moo ngi làqoon si biir suuf si tey ci suba lañ ko mujjee gis Aliou Bari bàyyi si ginnaawam soxna ak benn doom. mu nekkoon xibaar yi mbokki téléspectateurs yi ci seen télévision 2S TV ñu leen di gërëm sant ci seen teewlu yeneen daje xibaar juróom-ñetti waxtu lay doon ci kalam ak français jaa ngeen